Euh, bonsoir, très chers internautes de Guédia Info TV. Aujourd'hui, nous sommes avec les héros du 7, euh, avril 2019. Parce que si Mohamed Daoutezen avait réussi à séduire les Gambiens, Pambay 2 à son tour a fini d'émerveiller ces mêmes Gambiens lors de son combat contre Double Tezen le dimanche 7 avril écoulé. Un combat durant lequel le passionnaire de l'école de Moudmar Fadam a fait preuve de bravoure, de résistance, mais aussi de, compétitivité. Monsieur, dames, ce garçon Passionnaire pensionnaires de l'école de l'île Morfadam, Sa technicité n'est plus à démontrer, mais aussi son endurance saute aux yeux. Très sérieux internaute, comme à l'accoutumée, permettez-moi de faire une transition dans la langue de Coach Baron. Bok internautes yi tey ñu nga xamante 2 bu école de l'île Fadam Moi tout ko le héros du 7 avril 2019 ndax comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan Mohamed Daou Tyson en 2002 en 2001 séduire na Gambien yi moom Pambaay aussi jomal na Gambien Gambien yooyu ci combat bi nga xamante mi ngi dox ak ki nga xamante ne mooy double Tyson dimanche 7 avril bee ñu weesu mu doon combat boo xamante ne école de lutte Mor Fadam wane ci jàmbaar wane ci fulla wane ci fayda ba ñëpp gis nañ ki nga noonu la mujjee mu doon ndaanaan boo xamante mën a bëreem kenn doon ko naatable waaye itam ësaayam doon na loo xamante ne lu fës la ci bëdu ñëpp ñu bàyyi ko rek mu nuyoo présenté ñu doon tàbbi ci waxtaan bi champion ñu leen nuyu di mu lay yéen ma jàmm sekk ak man jàmm di ma conseillé ak di yëkkat seen xaalis di ma jox di gërëm Cheikh Sarr Sarr anniversaire Paate Baara xam nga Modou Faye di ko bëggee bu baax a baax a baax waa këram ak ñoom Modou Jabel di bëggee gaa yëpp di ziar sama gaa yi maa la ñoom Alpha Cheikh Dabala Amel Seydou xam nga di bëggee gaa yëpp di ñaanal ñëpp kan mooy Pambay 2. waaw Pambay mooy benn jëmm la rek. waaw benn jëmm bu xeebu la wàcce boobu ba suuf daal waaw yéen a jàmm sekk ak ñëpp waaw tey ñu fekkal également nga nekk ak waa univers Karate club ñu amal benn événement lan moo waral sa teewaay seen biir. waaw ñi maa fi waroon jiir sax man maa fi waroon jiir maa waroon dem fee si raas ndab yi wala ma dem si togg yi waaw ndax bu ma nekkee xale bu ndaw su ma amee bis ñëpp di si sonn guddi ak bëccëg kon ñoon maa waroon ñëw maa fi waroon jiitu fii nii waaw mais ni mu demee la moo tax gis nga démb laa jógee Gambie ñëw nga nga woo ma seesi ma far ñoom ñu def seen kii ma la kaan dugg si bi benn yoon quoi pour wane la ñun ñoo farma ñoom ñu ñoo toogandoo ñoo bokk benn fuñ dëkk ñooy toogandoo guddi ñooy toogandoo bëccëg yéen ma jàmm moo ma teew fii quoi

man limay tu wax li ma bëri mbabat sax bala ak mulo bëri ko mbabat waaw ndax li ma bëri mbabat bëri trop waron jël nay 4 ans 5 ans dama jël am combat arène sax jël 3 combat ans mbabat bëri na combat yu bëri bo ma bëri jën kay dama bëri mbabat samedi dem bëri jën kay dimanche ak yeneen bëri yeneen bëri ak bëri na mbabat bom tournoi tamit dama jël tournoi ba doyal geyé fi ni fi tey dama kaa jël pikin parcel noonu la am sama jël tournoi ba doyal yeen mbapat nga jëra jaar ak yeen champion nga jëra bëren ñi di bëri mbapat ñep la bëri mbëri di bëri si tur arène ak si boppam ñëpp laa bëri mbokkam ak arène ñëpp waaw mun naa ne pakala laa birul ak Mawar Ndiaye mais ñu si ñëpp laa bëri champion kan nga ci bëreel am nga am ci kawam ndam ku ci mel ni kan ak kan waaw bëri na ni di bëri mbokkam ñëpp daan na la ñi ay ñi ay 2 3 2 ñoom gora a saw ak ñëpp bëri na de ñoom ëbbaleeg ñëpp gars yi ma daan bari na de ak ordinateur fekk naa ko ba dëkkam ko ëbbali bari na de ñu ma si daan kay su ma du ñu si bëri ñu ay 2-1 la ay 3 daan waaw. ci kaw mbapat yooyu ban moo la ci gën a marqué. si kaw mbapat yooyu. ban moo la ci gën a marqué. waaw lamb lamb la rek boo daan lamb moom boo daanoo day métti buñ la daanee day boo daan day neex waaw boo xoolee am na mbër yoo xam ne daan naa leen lu si gën a marqué am na mbër yoo xam ne leen biir dëkk daan leen bëri na ordinateur dama ko fekk seen biir laa fekk daan ko ak yeneen mbër yoo xam ne seen biir dëkk laa leen fekk ñu samp leen ma daan leen loolu si loolu tamit neex na trop quoi marqué waaw ñu dégg aussi benn mbapat boo xam te ne amoon na fii arrêt Dial Mbaye baaj ba donc boobu Ama Baldé ñëwoon foofu daal di bëreeg Mbaye am ci kanam ndaw am également sa kaw ndam bu jour boobu sax ñu ne guy gi yaramam dafa mujj tàng mu daal di bëgg a summee ko boobu mi ngoon ci contrat digganteeg bébé Saloum ñu téye ko loolu am Pambaay da moom sax daanu maman daanu Pambaay ama trois fois lañ final moom moom foofu du benn yoon sax dañu ñu ko finaalu gaa yàqu ñu final waat mu ne bàyyi ma jox la xaalis yóbbu nag bi mooy bi naan bi muy nag bi mu koy cat bi muy def cant yi Pikine beneen bi ama ba dégguñ sax ñun ñaar gars yi ñu lañu wodee coraay jaasi taxaw bëri ni zil bale fekk ma mooy bëri am mooy waajo bëri ama balde waa paate waaw mun ma soo saaga ma sa ma daamat kii la ama balde soo dakaa dóor contre mu daanu ñu bëri ama dafa ma war nomba yëkkati ba si kaw ba léegi maa ngi foto kii dafa ma war nomba yëkkati ba si kaw daanu ma si biir géew bi gars yi daw ak jami di ñëw si géew bi ama balde moo ma téye nii daw ba dugg ma si koñ nii waaw loolu moo faate mu ko daal noonu la demee waaw noonu la demee waaw li ñu naan guy gi dafa xataraayu daw bu dugg loolu am na wala amul. waaw guy gi ñëw na fa ñun guy gi moom suñu nit la fu ñuy bëree fu ñuy bëree tournoi dañ ñëw na ñoom bëree de fu ne lañ dem ànd ak di jël tournoi andi fii nii bu lol weso nga daal di ba pat am ci tour machallah ñep xam la nga bay sawar euh ba ñep rañé la nga daal dugg ci li nga xam tane ne li lit ban année nga dugg ci dit avec frappe man 2011 2011 la dugg ci law wa door waaw bëri na instant nii 16 combat la am ni 10 victoires la wa waaw 3 défaite ah waaw ak 3 machines buñ ñu xoolee sa palmarès aussi nga daan ku ci mel ni kay rek mun nañ jamono ji waroon na la fekk feneen mais boobu léegi yoon bi xaw a yéex lan moo waral loolu waaw boo gisee yoon bi yéex na yéexoon sax ndax ñun ay ndaw lañ quoi heure bi sax waroon na fekk la ñu waroon doog a dugg si làmb ndax bu may dugg si lambo boobu teel trop ndax tuuti naa trop gars yi mooy xaar bas kanam mais fi da jom laa teg ba egg fi ma egg nii waaw fi da jom laa teg quoi Ah, ñu gis aussi sa diggante ak ki nga xamante ni mooy euh, Valdo ak Modja ñaari combat yu nga perte coow li bëri woon ci am ñaan Pambay entraîné wul dafa jël lu bokk ci yaramam coow li bëri woon ci trop quoi combat yooyu lan moo nekkoon problème Pambaay léegi la léegi nii sax la mais man foo turee waroon si lamb la mais amul si na mbëri si kaw ñi si si kaw di bëri ay cent nanga million man wala ay am combat di ma woo di ma laaj seen si lamb ma kese si lamb di ma laaj kon man lan laay si lamb du may man fa laa ko teg du leneen man amul ma tiit si lamb ku ma daan si làmb da nga war a daan daan mais lu fekkee cadre jom fu la fayda lu ñu wër si làmb wala si góor yàlla dafa nekk si pambaay ku daan si làmb a daan garaawul man ku ma daan la mën ku ma daan yaa mën laa ko ma lay daan la su ma la am ñoom tamit ñu la doon laaj te da nga bëggoon jëflante ak ñoom wala leen sa bopp voilà xam nga làmb daa bëri coow bëri wax foo tourné Sandaga Géejawaay Caaroy foo tourné làmb ji pambaay nanguloo ma ko man boobu boobu may laaj ñu naan waaw kon ñàkk a jëriñ ñàkk a jëriñ moom pambaay boobu taxawgul ma koy dégg man ne kenn dégg maa koy dégg sama nopp ma dégg ko ma xam ma xam man nopp bàyyi si biir gars yi wax ma leen fii laay wàcc bàyyi la ma wàcc fii yàgg-yàgg sama wàccee fi dama yéeg fekk si ñee ndax ñee fee la ñu dugal ñu wàcce waan ma yàgg-yàgg dama yéeg fekk si ñee te doom kaa gëm loolu noonu wax jooju dafa nekk sama xol ma gëm ko yàlla xam na loolu man waxuma kenn dara man noppi noppi rek armuna ma préparé lamb yi dem France mu jaral ma jaay sama oto oto boo xam ne tournant ma ko may lamb lit simple ma jaay ko dem dem voyage ma voyage ñëw ba ma ñëwee gars dañoo kontaan ma forom ma jëkk xool kontaan sacrifice boobu yëpp jot nga ko def ci diggante bi jaay sa oto yooyu yëpp pour dem liggéey waajaat waajaat bu baax. tourna tournoi bi si laa jaay sama oto si tourna Fallou Ndiaye ma jóge France gars yi fii may ñu ma dara barki Seydina Ahmed chaque jour gars yi may ñu ma dara gars yi dañu may jël si ma ñëw fii su ma ñëwee bi tay fajar gi gars yi yóbbu ma Estar Grand D Cheikh Souba Salim Weer gars yi jàpp si ñoom baara jàpp si bu baax ma liggéey nag bu baax ku liggéey rek da ngay jëriñu gars yi wax ni mën a bëri coow mais ku liggéey da ngay jëriñu yàgg-yàgg ma liggéey bu baax ba ñëw fii géej ku ma xool xam ne kii dafa liggéey te bu ma ñëwee dama wane loolu boo foo liggéey boo amee doole liggéey entraînement am li nga war am nga def nga war dem foo duggee mbër bu dugg si stade sa gars yi xam nañ kii pare wala parewul waaw dama doon jëli ba moom lépp ba ci sa combat ñax sax gis nañ loo coow li dafa bëri woon yéen ñaar ku nekk di sànni sa morom xeer mel ni ku nekk dafa am loo denc loon sa morom waaw non boobu fekk na bokkul mbër bu bëgg comme li kii wax rek borom bi ngi boo gis rek soo ubbee xool magasin ma ngay fekk foofu boobu ñoom pambaay li mu si làmb ku nekk bëgg nga bëri pambaay te ku si bëri pambaay il faut nga coow ji soo xoolee stade bi daa fees dell Pambaay mosul bëri stade bi ngay am sax ay benn place nii di xool nii ñoo nga lamb ji démb ay champion ñoo ñoo nga gis ji ne mbëri dañuy bëri wàccal ñibbi Pambaay moo nekk seen mbër boo xam ne buy ji fees na mais da nga gis stade bi gars dañuy daan di wàcc ñibbi mais Pambaay heure yu bëri kenn du wàcc ñëpp ay toog da nga sama combat yu bëri stade fees dell contre mag ñoo jën kayre ñu ngi tuddee drapeau bi te ñu si kaw suuf lañ toog maag général trois fois yëpp ñu tuddee drapeau yi suuf la ñu toog am ñu sax fu ñu toog ci kaw kon kooku boo ba toll foofu ci làmb amateur yi àdduna bi di la bu ñu Pambaay moo bëri ñu mosul def stade sax di def stade kooku am neneen nooy doxee da ngay doxee nu bëri man daaw moom doxee nii da gis Pambaay muy dem di tëral di toog ay maas añ léegi man su pour waxuma sunu waa lu muy gis sax bëriwul waxtuma keneen si mbedd gi. mën nañu jàpp ne léegi matière nga te ci côté yu bëri màgg nga ci am na yooyu moytu aussi. non ah affaire de jeunesse ñëpp si jaar fii ñëpp koo dékk micro si àdduna <laughs> amul kenn ñëpp jaar sa affaire de jeunesse boobu ngay dox nii kenn du sax ku leen dara nga xuloo moom mais par force man damay la jënd te ku ma la jënd damay xam ne may toog ñu may diglu mu may ne maa leen wax may la kon ni da ngay da ngay amee conseil di déglu nit ñi di la xelal ngay dem mais ku dul déglu nit ñi rek say erreur ngay dugg waaw mu bàyyi lu bëri nag lu bëri laa bàyyi yàlla xam amatuma jorul lu bëri billaahi wallaahi taala jorul lu bëri sunu waa kër la bu ma toogoo ñoom li yàq xam ne yàggul ndax heure bu ma jógee su ma ñëwee suñu kër dama nelaw mor si gàttal la wax bu ma duggee suñu kër nii 3 heures laay bu fekkee dama dem entraînement ba ñëw su ma tëddee 5 heures laay wala 6 heures damay dem entraînement su ma jógee salle entraînement fii laay ñëw salle bi fii laay ñëw fii laay nekk ba 10 heures bu may duggaat suñu kër def fekk sunu waa kër presse di tëdd su ma yeewaat dama fajar sunu waa kër lu ñu ma gis sa bopp bëri waxtuma laa keneen waaw. su ma la déggee sacrifice yi bëri na jot nga jaay sa oto di moytu yu bëri di xañ sa bopp yu bëri objectif bi lan la lan nga visé pour def yooyu yëpp. waaw fi gaa yi egg bu ko romb fi gaa yi egg laa bu ko romb. waaw ndax gaa yi kenn gën la su ndey gën la su baay kenn gën la su ji fii kon li ma waxoon rek contre Diène Kairé dama wax ko signature bi ma leen làmb ji nekkul affaire amul doomu mbër benn démb rek benn paa mu wax ne ma daa am lu tax ma jàppale yow man la ma tax nga jàpp ma da ngaa toog signature contre Diène nga wax benn wax bu garaaw ma Eh, mo fada ya ko euh ne ma da nga sa compte signature ak jël ke da nga ni do mbor do do mbor mais di fi am lu do mbor di fi am lu mbor amul man ko la wax ba legui te loolu mo nekk sama sama xol la nekk sa ko bi nek sa lu ñuy wax ni man duma mbor duma do mbor la wax mais inshallah na fa am lu do mbor amul salam lamb mako wax dafa nekk ci man ba legui ni don cadeau yam ten ci gem gem nga ko tek gem gem gëm dara ci gem gem la ko tek da aduna lepp gem gem la dama am gem gem ni da yag rek wa ndax dama am ñaan wajur mo dox dama am ñaan wajur teug fa yalla billahi sama yar mo geureum sama papa geureum mo sama taaw yaay gërëm ma sama taaw papa gërëm sama taaw papa gërëm ma mooy Ibrahima Mbaye Cité Sonatel Pam Mbaye Malika koy gërëm bu baax sama taaw yaay Espagne dañ maa gërëm Tafa Mbaye sama mag gërëm ma ma forom gërëm ma billaahi wala dañ maa gërëm yàgg yàgg day yàgg mu neex mu naqee damay am salaam damay am salaam incha allah ah, mbër ci kaw loolu nga final ak ki nga xamante ni mooy Ramdan coow li trop am ay jamono nga yëkkati woon ay kàddu ni ki nga xamante ni mooy promoteur Fallou Ndiaye li la war ak moom def nga ko waaye a def sa diggante ak na lu waraloon nga yëkkati waaw soo gisee loolu si laa nekk ba léegi rek man li ma war la moom ba léegi loolu wax ba léegi def naa ko li ma war la moom mais ba léegi moom li ma war la moom des na ba léegi ndax sa gàttal euh, dañoo war a bëri maag Ramadaan ah xam nga Ramadaan moom dafa dem voyage mais si coobare boobu la voyage sa dafa nekk say activité ba ko du ma ko mere si loolu noonu mais mu des deux semaines sama loxo am faillir yaa dégg ma dem ba gis médecin pour pour médecin pour ñu defal ma loo xamante ne naa sa mën a bëre médecin wala mënoo bëri boo médecin CND la ko kii dafa gaañ te mënul bëri yàlla xam na loolu hôpital Gaspard Gaspard Camara laa ma loo xamante pour loxo dina arrêté kooku woote na kii mënul bëri woo médecin CND médecin CND ma ñëwal foofu léegi-léegi am gaañu félir nga da ngay bëri moom yàlla xam na loolu dama bëggoon bëri ak moom yaa ngi dégg médecin ma xool ne mënoo moo xool ne bu fekkoon beneen médecin ma forcé pour bëgg a bëri mu ne mënoo bëre ñu àññale lamb ji mu naqari ma trop ndax man xam naa ne après nga dégg ay dafa raw ay dafa ragal dafa nii yàgg yàgg dafa daw dafa ragal am wax jàmm laayaar moom xanaa mu mu bañ a ñëw mais heure bu ñëwee dañu bëre. ci kaw blessure boobu yaa promoteur bi nan la communication bi demee woon. waaw non après promoteur bi mer na moom ndax fii moom xam nga Sénégal pour ñoom lu euh, àdduna la fii nii. bëri naa gaañu naa après gars yi bëri gëmuñu ne gaañu naa ay moo ko tey ma ne ma médecin CNG moom faj ba léegi maa ngi sama kayit papier yi ba génn kayit yi médecin CNG ñu wax nangam nangam te Ramadane moom mu njëkk a dem CNG deux fois dem na CNG moom yóbbu kayit bande loxo dafa gaañu. avant ngay déclarer sa blessure. waaw dégg ko Ramadane njëkk dem na CNG ñaari yoon avant may ba buuroon bëri dem sen de ñaar yoon pour déclarer gaañu ko da ngay gaañu ko dara jot la ndax promoteur ay ñeñ lañ ka wax feneen ko ramdan di la ñëw da gañu ta gañu wul bu dem mu dem xok xoog gañu wul bu mu déggee damaa gaañu ma ñëw station ko yéne wax te da nga da ngaa gaañu man ko loo yëngal yëngal yàgg yàgg dañuy bëri wax oh, jàmbur fi fa 30 ans bu wax sen de wax dañuy bëri suñu yaram koy xaar dañu bëri te li ma gëm mooy suñu ma dal ko la gëm ba léegi ndax xamna bu baax xamna ramdan bu baax fi lañ doon kontaak sa di mën ko soo jàppee mbon ndi ak xamna amul ma ci ki wala ma sala bu ñëwé nak ak lu mu mën a tolloo su ñëwee dañu bëre parce que dégg nañ ko états-unis min dégg na la ngay wax rek sa wax bëri na lu nekk mu wax dila sanni xéer waaw waaw mais day wax rek lamb bu wax ñu ànd lamb moom bo dégg mi ko muy bëre bëre mbër dara tata rek mais ratatati daa fu mu am kon bu ngeen jëflante rek après ku nekk aw na waaw waaw légui ñu demone ba ci biir ba japp combat bi ma dem gambi antenne promoteur bi wo woo na dañuy japp tata lamb ñëwal ma jógee gambi ñëw ñu japp dem japp dat combat ba ne bis na am lañu bëri ba réglage combat bu mu ci 2 semaines Hmm. après mu dem voyagé ma xaar quoi ñu ne kon que Pambaay may dégg ay si ay kii ñu ko yor ne Pambaay moo njëkkoon yàq làmb ji ma leen man nekkul sama coobar la yàqee làmb ji dama doon préparé làmb mais moom dafa ñëw dekk say activité nga def moom yaa ñu ne day ñëw du ñëw ñu ne bindi plante promoteur bindi plante yóbbul yóbbul yóbbul gars yi ñun bu fekkee day ñëwul mu day fay ñaari avance waa CNG la 27 boo ñu waroon bëri ñu ñaar bu passé Pamba yorul yorul to promoteur bi si moom moo waxoon Fallou Ndiaye ne ma waa CND ñu wax loolu ñoon la bu jàll yow yorutuma yorutuma avance da ngay xool leen ma xool leen ma ne ko man six bu passé ñu ma ne Fallou ma ko man góor laa même waa CND bu ñu waxee dama lay bëri dama lay mu jàll waa mu jékki-jékki mu dugal këyit ne dama koy yor avance daa ngee ma bëree suñu daan ñëw su ma wutee adversaire su ma dollee xaalis ma bëre. mais ci ñu doon dégg ay wàllu yokkal comme boo leen financé loolu am na wala amul yokk xaalis wala bañ bañ leen yokkal. Euh, yokk xaalis. benn moment ñun promoteur da leen waroon yokkal am ay coow ci loolu est-ce que a ko. waxtaan gars tëgg làmb xam nga xam egg dina egg kon loolu si waxee yow dañuy waxtaan dëgg quoi si xel laa waxee kon ñoo yor dañoo nekk si après si loolu neex waaw mais après ga tey ba xam final dina egg wala du egg wala ñii na ñoom final lu nga waxaale final la a waxaale final bi xam final yi combat yi am ba ñu final ñu ne fay mais ñoom xam nga seen lijjanti dem nañ lijjanti ñu ne temps la ñu fay gars yi coo coo amul problème coo nañu pare am na pare nañ bëri garaawul xam nga kenn ko naan ñaari yoon ñu am na erreur nañ bàyyi mu seetlu garaawul ñu ñu war a bëri après mu dem yaagul ñu ne waa dañ may sànni adversaire nii dem nañ demoon wuyu CNG ndax man daje na Thierno Ka ñëw na Gambie ma ne ko père man boobu ba léegi maa ngi xaar seen combat bu yeneen tax ba mënu ma jël beneen avance tax mënu ma jël avance mënu ma nooyee la nekk nii mais dem nañu woon sa ménagère mu dem ak ménagère jàmm bi ndax bi nañ kër yëngu dafa war a fay du fekkee dafa man dama dama promoteur bi ma tëgg dama ne mais Fallou nee naa ko jox ma combat am na benn combat bu ñu doon dox ñu ngi si woon dogu ma la mais su la déggee ni nga waxee dafa mel ramadan euh, pour toll ah non man xawma moom c'est actif la nekk daal man licencié man li ma nek man maa ngi si nekk moom mu ngi li mu war man su ñëwee ak bu ñëwul damay bëre man xaaruma ñu dégg promoteur den Fallou Ndiaye récemment mu daani combat bu am date est ce que loolu am na ci jot waxtaan ak yow wala combat date non non non non pour lañ ak ñu fay avance ndax sa ménage dem mais pour ko mais dem nañ ko woon CNG pour gars yi fay xaalis jàmbur waaw man mais laajagu ko dara lu leer ko saa nag su ma génnee laax bu ko woo pour laaj ko nu mu mujjee gars yi. am nak mi la Ramadan ak ñàkk Ramadan si nekk ku ñëw pare na waaw sama yaram yoo xasan ni de ku ñëw pare na bu ñëw fii tam maa ngi dugg si àll bi waaw du ma ko yàq rek waaw. yaa ma gën a xam. loolu leer na léegi bu loolu weesoo ñu wax tuuti ci écrit bi école Lydie Mor parce que amoon na ay jamono mun naa ni nekkoon ngeen ci benn lancé bu extraordinaire euh, résultat yi di dugg ñu gis ay xale di feeñ mais ñu dem benn moment jafe-jafe yi bëri trop donc mu am ay difficulté difficulté yooyu nan ngeen ko mën a expliquer. waaw àdduna moo demee noonu sa waay liggéey boobu am na perte am na gagné da gis ku yor magasin sa instant yi di yor di yor magasin nga jékki-jékki doo mun dugal sax cent mille àdduna moo demee a adduna moo demee noonu quoi licencié mooy ñu ngi liggéey daan ah am na ñu am na ñu bëri daan ndax boobu léegi am na boo xam ne si équipe bi daanaguñ ñu ngi bëri ñu ngi daan waaw ñu ngi bëri ñu ngi daan euh, su ma juumoon guy gi si victoire jugee am na yeneen booy yu fa yu ndaw yu daan am na ñeneen ñu fa am presque mën naa na fa daan ñeneen ak ñeneen amoon na grand combat su école mun naa ne presque xaaj ñëpp am combat njambaar am na ñëpp am nañ ko ba yaakaar naa mi ngi dox tal sama gis mi ngi dox ndax man génn naa jëf ay tournoi guy gi bëri na daan demaan Cheikh Soubel Diop na bëri na Cheikh Kayma bëri na daan xam nga gars moom su kenn nit daan wala ñaari nit daan la dañ gisee mais am nañ ñu bëri daan ndax mën naa ne mbëri ki sa nekkul si école bi Pam Mbaye ki sa nekkul si école bi am yeneen yeneen di fa nekk ñu bëri daan dëgg fa yàlla te ñëpp am nañ combat te li musul am si école bi di sant tamit pare président suñu président école bi ndax booy musuñu bëree nii ay trois booy ñu doon bëri quatre booy mais instant école bi ñëpp am nañ combat ñëpp ay bëri grâce à pare président waaw di ko sant bu baax a baax am na ñu naan sax encadrement bu ñu xoolee ko au niveau de école bi encadrement bi dafa des loolu lan nga ciy tontu. encadrement dafa des ci école bi looy tontu ci loolu. école ban école moo fa dem. non école bi loolu lu mu desee école bi instant yi lu musul am la am instant yi nii école bi lu musul am la école nii ñaan toog ñii suñu amul ko waa duñ ñëw ñii suñu amul ko waa duñ entraîné mais loolu amatul léegi amatul ndax président bees bi amatul de école bi yëpp a tegu si yoon ndax Pate président ñoom Tafa Ndiaye ñoom Thiera Moro gars yi si jàpp président yu baax yu bëgg waa bi

ana ñu fan lañ nekk quoi. waaw non Mandela woon dafa voyagé Mandela dafa voyage quoi mu ngi Italie instant nii mais njambaan moom mu fi quoi di entraînement boobu léegi nag amul combat même ñu entraîné dëgg fa la ñooy nekkandoo na combat ni Moussa Ndoye kii mooy bëri avant grand combat spécial bi moog Belende waaw ñoo koy bëri mm, di ko ñaanal bu rëy ak géej wooyu ñëpp waa ku si am combat waa géej wooyu di la ñaanal di sant ñëpp gërëm waa ñëpp rek waaw. mbër bu loolu weesoo ñu wax tamit ci leneen lu waral coow li muy li nga def bëgg demoo Njaay Gàmbi sa diggante ak double wax naa ko sànq en français mu doon vraiment exploit bu rëy avant bi nga ko bëree jaaxal ñu bëri lan moo waraloon dem Gàmbi nga jël combat boobu. loolu dara loolu kon boppam lañ ko jàppee woon léegi ma na gars waroo ko jël yaakaar raw groupe làmb ko jël te dëgg la wax raw aller ak retour raw maa raw raw maa mais lamb laa ko jàppee ndax boobu instant yii nii am naa confiance boobu a tournoi xam nga lu ma wax kon tournoi moo fa dem tournoi laa ko jàppee rek yàlla xamal loolu ni laa ko waxee ma ne ko tournoi laa ko jàppee ndax su fekkee borom maa kii tamit maa ngi dem sax leen di leen daan te moom lañ maa yoo xam ne ñu ëpp double tey ñu xam ne doo leen xam laa mujjee daan Seexu Busum tam njool te punkal nii moo bu caaga fay foofu moom laa mujjee daan te moo moo moo ci ma doon bëri double tey seen dëkk laa fekk daan ko moo na maa daan am na ñoo xam ko man ni loolu laa koy jàppee rek quoi da ngay génn si àll bëri ay mbir yoo xam ne xam kenn xamul leen suñu la daran tamit dañ koy génn si télé ndax média yëpp ay dem léegi si lamb kon mën naa bëri ji kon tournoi laa koy jàppee te dama koy te dama koy daan ma ko instant ni ma nekkee nii nii acteur ma nekk nii nii ak confiance bu am lamb nii instant kii mun maa sax yëngal te noonu la demee mais mu nekk adversaire bu am teen ñëpp ko doon moytu donc ñu bëri ñamawuñ ko musul dem ardo nga ñëw xeex ak moom bëri moom lu teng yóbbu ko ardo lan moo waral nga bëri moom noonu déggoo la man ku ñëpp ragal lañ ma Sénégal fii laa ku ñëpp ragal lañ ma jox

loolu laa soxla adversaire bu ñëpp ragal yàlla xam na du ma jël combat bu yomb sama morom du ma jël sax du ma jël sama morom adversaire bu diis laa soxla boo xam ne dañuy toog ne divertir ma préparé ñoo nga préparé ñoo nga xool waaw. <laughs> mbeur ci biir bëri bi endurance bi quoi gis nañ ngeen bëree ñaari 10 minutes endurance bi à chaque fois tamit bàyyi woo yaa ngi bëree moom lu métti te aussi da nga ko ñeme de trop. bàyyi fu may bàyyee dama bàyyi mukk ñoom duñ contact gars duñ contact de poids yëpp gën si contact kenn ñamul si métti dañuy nelaw ba 11 heures mbir ñoom salle musculation wóor na yàlla dañuy daal bu 11 bi ñoom salle musculation so ma dama dem dama dem din fajar dem dem salle musculation di contact chaque jour ñoom luñ contact dañu naan ku si contact da ngay jeex ñun poids kenn ñemoo si contact dañu naan ku si contact da ngay jeex duñ contact ñoom dañoo benn jàppal lañ jàppale ñu ñaa mu naan gudd ndox benn jàppal lañ dañoo jàppal ni yàggu saako ñu matul deux minutes sax trois minutes arbitre aate ne kaa leen bëri mu arbitre ne ko kaay mu dem c'est la même avertissement arbitre ne kaay mu dox ba kii téye ndox bi gudd ndox mu naan ko ba gudd ndox bu jeex ba mu des tuuti mu soodee ko ba pare taxawaat ni arbitre ne ko kaay ba sonn bañ abdou jox avertissement da bo man may may dox di dox di xaar ni lol day wone ni physiquement yaa gënon paré fouf fi ba suba buñ bëroon fi ba suba buñ bëroon moy bàyyi lamb ji bu arbitre bàyyi mu kon def fi ba suba day bële day gëna am problème day bàyyi ya nga gis mu naan loxe mu naan ni duñ ko ndak dem sal bo mbeur bo dem sal musculation chaque jour suba ak ngoon ak di bolo contact lo beure beure do chargé yaay deug man kenn wax ma dem man dama tawal sal man dama dem sal ba samedi ñi xam nañ ba ba samedi dama dem salle classe chaque jour li dem salle dem salle ba may combat bi mu koy paré war dem salle suba ngoo laa dem salle ak diin ta fi ba suba bu ma bëri ma salle mais fekké nga dem salle bis classe do contact da ngay da ngay sardé dem salle bis classe champion salle bis classe wala ma jël combat bi foo tourner waru ko ñu lu ma gën na xëy dama jël combat paré gaay waru ko ñu mané ñen ñoo waru ko jël sa wa écrit encadrement wala ñen aduna bi yobu groupe whatsapp bi foo tourner ma maa maa ngi si groupe whatsapp di ko dégg pamba dama dama ko jël mo mo raw ki ci lamb fukki junni di ko jël so toogee bëreewoo tamit dañuy wax dëgg mbër Sadio da nga war a bokk sa ñi ñu tudd chaque jour wala chaque jour bu ñu defee journal ñu bokk ñu gis journal bi yaa ngi dëgg dama ko wax tey benn grand man wala nga jël ko man xam dama bëgg chaque jour bu ñu xoolee journal lamb wala émission lamb ñu gis Pambaay ñu gis Pambaay te loolu laa gis ba ma jëlee comme dama dem Gambie ma ba soleil bi gars yi dañuy envoyé soleil chaque jour gars yi dañu ma def soleil ma ne xoolal li la doon wax li ma doon wax moo nekk nii da nga demee si xel ngay demee mais ne ko da nga léegi soo toogoon def nii boo ko si ñoom ay ñoom mbëri bëriwul nii da ngaa dégg seen tur kii dama mu daan def lu nekk si lamb kañ nga gëj gis mu daan def si soleil lamb kañ nga ko gis man dama bëgg si bu wax sañul ñuy wane sa lamb ak ñuy wane cere ma jël ko waroo koon jël waroo ko jël Gambie waroo ko jël waroo ko jël moom tamit mu dem mu dem Gambie am lu mu def Gambie ñëpp ragal ko xam nga lu ma la wax mu dem Gambie comme jàpp trois minutes da lay duma dans la dem yoonam man kii laa soxla nag for ma ñëw combat nangaloo mu doon bëri ma ñëw stade yëngal mu tëkk ma ko waa ma ne voilà am na ñoo xam ne si biir Gambie dañ ne Pamba day tëkk day wax ni rek mais ñemoo jël kii ma ne billaahi wala kii su ma xëy su bërul amoon di bëri kenn fi Gambie ndax kenn ñemoo ko man maa ko ñemee ñu taxawal combat bi ñëw si wax noonu gëm nga ni doo taxaw ak moom. waaw dama la ñu jël combat bi ñu dem ba maan promoteur bi maan gars yi kii trois secondes dama koy ma daan ko moom diwul tay la naan kii matul mbër naan nii man xëy ngand moo la boole ak làmb mais mbër bi ak ko ngand ki du benn yaa ngi dégg man ko mbër bi ak ko ngand ki du benn de gars yi dañuy jaaw loolu mbër ak an fee policier yi ba ma bëree pare laa kii policier fu ma romb policier Gambie yow li nga def fi xamoo ko sax yow président Aroboro moo ma recevoir ndax ki gars yi ku fi jàpp du ama yow 3 minutes man dafa dem gars yi dañ ko mere gàmm fii yëpp gars yi dañ ko mere woon amuñ ko leen fajal mer ku ñëw ñu la lee dem yoonam ma ñu si ëpp foofu suñu ma ma leen ci na ñu si dara ñu ñaar coow la moo war a bëri ak tamit gàmm bi gars bëgg ma xam nga bëgg ma jàpp mooy promoteur rek borom xaalis yi ñëpp bëgg ma jàppale ñu ma da ngay fii ma leen fi amu fi adversaire ku ma fi mënti bëri maa lay may chance ñoom dañoo bëgg ñun nga bëri fii ndax ñu dañoo yàgg a supporté yàgg la bëggee te mosuñu mosuñu la gis nii bëri bëri nga dem bëri di ñëw Gambie ba am accès bi Gambie dañoo bëgg nga bëri ba pare taxalam foofu ay fan si club yu bëri Banjul gaa yi taxalam fan si club Ibo Town biir Kamba gaa yi taxalam fan si club Serekunda ñoom Mor Faye ñoom Cheikh Baye Fall Sita Bamba xam nga Banjul tamit sama ñëw ma ñëw équipe ma nekk Banjul gaa yi taxaw ma billaahi wallaahi dafa mel guy gi xam na la guy gi dafa tiit sax mu ne Pambaay li nga am fii supporter boo ko amoon Sénégal demoo seen yàlla xam na loolu gis nga stade moo doon bëri mu toll moo ëpp stade Demba Diop dama ko diw ba mu fees barke Seydina Ahmed dama ko du amaat promoteur damaa dugg si rek mu daw ñëw sama dafa tiit na ma wax dëgg fa yàlla li war dooga ak man li ma waxoon def nga ko ndax dama ne ko ba ñuy waxaale ma ne ko man boo xam ak mbëri ñoo fi andi ànd ñaari nit ma ne ko am na mbëri bëri Sénégal yu bëri ñoo nañ fi ànd ñaari nit lañu ànd bu ñëwee si stade bi dañuy jógee Sénégal ànd ak ñaari nit ma leen man su ma man ko boo xuma man su ma doon bëri Abidjan sax gars yi ñu daga paas ñëw kon gam mobilisation nga fa yóbbu waaw illa bu bëri sax bu bëri dugal yi nga xool yi dug ma xool ko ba may ba may ba may ba ma koy yóbbee àroo nga nit ñi ñoo def amaat ak bu may baaxo ba muy baax amul kenn nit ko taatu dama ñëw di baax ñëpp jur taxaw loolu lépp laa duy ba mu fees dell mu ne promoteur ma soo du ma dugg sa moom ma dugg sa mu li nga waxoon ma ne def nga ko mu duy ba fees dell waaw di sant xam-xam bu Banjul bu sant bu baax na 300 wala 400 nangam mel gars yi génne Baye Fallou Serekunda ñoo génne ak nga def kontaan ci waaw waaw dañuy santaat rek di santaat rek ndax ñun loolu moom loolu jomuñu loolu jom ndax ko am jom am fii moom bu ñu dëgg foo mën a dem da ngay am jàmm man gëm fu ma jëm damay am jàmm damay am salaam fu ma jëm nit ñi dañ may bëgg loolu dama am liggéey ñaanu waaju ko wax léegi rek fu ma dem billaahi wala wala bu ñu wala fu ñu demoon da nga da nga naan lii du dëgg ndax dama fa dama am ñaanu waaju fu ma dem bëgg loolu yàlla sama borom moo ko def yàgguma Gàmbi di bëte moo ma njëkk a ñëw moo ma a bëri Gàmbi njëkk maa dem Gàmbi moo ma njëkk a bëri Gàmbi ndax man 2000 laa commencé dem Gàmbi ba léegi ndax sama benn gànnaaw ma fa doon jaay lii faa mooy Thiou ak ñoom Baye Aliou ñoom sunu mbay ñoo fa doon jaay lii Ba la mais moom baax mu neex sama baax bi ba léegi loolu ko yaram baaxoo mu baaxoo pare sumeeku moom du ko teel sumeeku yaram ni ak ngandaay bi ñu bës gaa yi naan dama koy duma àll ma yat sel bi ñëpp ñu faroon pam am yoo xam ne ñoom jooy ba mu yow ba mu ak mu toll ndax guuy guuy ñoo xam nga ñoo la ñoo la làmb ja ba dugg seen sama ci mukaal guuy ñoo taxaw dafa ñoo rek guuy ñoo noonu pam baay waaju ngan na man sama man ni sama xel man guuy gi wax ni war da fekkoon da ngaa wax ragal sama ñoo yaax la bam làmbam tiit guy gi dafa waji fa dafa ngand dafa ngand gudd guuy ñoo ñëw pam baay waaju ngan na de mo wa baxna bu teye bayere léegi lepp le man ma si boole di wax ni sax ngand la mais ma gën ma xaw fit ma gën a nekk góor yàlla te bu yoron jaas du sax bu yoron jaas ma yoruma dara duma ariya arrière xamna xam loolu ndax dama xam ne bii mooy sama premier combat Gambie ñu ma yéene woon Gambie bëri na ak gars yi jugee Sénégal sa mu soree yor oto paas bàyyi seen liggéey arrêté seen liggéey ñëw ma ne kii fii ba suba su ma ko daan moom du ma daan man su ma ko daan mun mun naa waaye xalaatuma sax mun daan ma sax man ndax man ñu jugee Sénégal ñëw rek bàyyi seen lépp ñëw ak ñu bëggoon ñëw tamit ëpp foofu ñëwoon kon ñooñu du ñëw ba fii ba Gambie ak ñu soree di ñu boor ak defet non non moom kaw xool dëkk moom mun na sore jege na ko bu jegee fii rek di egg si Kaolack mais ku jigee Sénégal ku jigee bu fii ak defet di ko xam nga man lu munti am man xoolee li ma bëree sax xam ne jom laa bëree ma bëree jom dëgg kii ma ko daan ma daan te damaa gëm ne arbitre fi ba suba ma koy daan la man ay ta gaay kaan ma ne xoolee man su ma ko kii du ma duma te man duma yi ma ko duma moom da kaa bett te da kaa bett trop ndax moom ku mu jàppale lay duma moom dumay bett gaa yëpp arbitre ne pire mu waaxu ma gis ma arbitre ne pire léegi sa arbitre ne mu ñëw mu ne tëj góor juróom ma wàcc suuf ma ko nax xam nga loolu ma soxla moon sax pour la tànk bi mais pour mu arrêté dóor yi foog nga xaw ko soog mu arrêté dóor yi déggoo man du ma xeex gànte làmb mbër so mbër non mbër mbër bu yàgg sa làmb dëgg dëgg dëgg boo dajee mbër lu mu andi même bu ñu la jekkoon si gaarata waral daan duñ la daan loolu mooy mbër dafa dóor mais ma dama wàcc suuf la tànk bi pour arrêté su la arrêté dóor yi dafa jàpp ma bàyyi waat ñu lay tuwaat mu dóor indi mu arrêté kili mais heure su ma ko dóor sax dama dugg si gaar bi su ma koy dóor dama dugg ba fii si biir coup bu ma ko premier coup bu ma ko njëkk a dóor si bët fii moo dal ma ko dóor bët bi ñu la toll si saa si nga ne nii si la arrêté nag ñëwatul soo ma toll man kii ma taxaw ma ne <tsk> sama xel xaar kii il faut mu attaqué kooku ma war a attaqué attaqué tul man maa ko war a attaqué mais su ma taxawoon di xaaroon laa ma ji kon dañu mas ne kenn bëri ma attaqué ko dóoraat ko indi fii nii xaar heure bu ma ko su ma ko dooree foofu mu naaj muy dem aaroo ko ñëw rek dem aaroo ko ñëw heure bu demee su demee aaroo suñ ko fajee pare kaay bëri mu taxawaat si gars yi fii naanam ndox taxaw waaw boobu fekk yàq nga làmbam. waaw bëreetul xeexatul fa dara day taxaw rek après am na benn instant boo xam ne nii gaayam yëpp wàcc ñoom si yàlla la àndal Valdo Gambie ñëpp ñun ñëpp dugg si géew bi man kese ma leen xool leen benn boobu ndaw contre ñëpp ñuy taxaw di wax nii ma leen ma ñëw si ñoom ne leen da ngeen wax leen ba pare yéen ñëpp su ngeen seen xel yéen ñëpp bu ngeen booloo benn taaxu ma daan leen gaa leen si laa joxee mu ñëwaat jox avertissement temps bi jeex ma tam mi ngi nàcc rek daal di jox ma victoire bi quoi loolu moom du nekkul gan si man. après bi laa mujj jeexee jot ngeen wax yéen ñaar. non waxuñu waxuñu ndax ñoom xam rek ci wuñu quoi guy ñoom wasuma ne ma demal si moom ma ne ko non du ma dem si naa ni na gaam yi foofu andi ay sàcc la andi ay sàcc la fa andi làmb ji jeex ñu agressé boo yëpp nangu seen portable te du fekkoon a bandi rek war a fit xam nga fii man booy dañ ma woo fu nekk pour ñëw ma leen di ngeen dem làmb su ngeen wala dañ ma woo fu man ñi bu ñu naa ne mën naa fa am problème man ndax xam naa ne seen Sénégal ma yor fii bu ñu demoon Gambie ndax lañ fa gañu bari moom man ko man waxna gamé yi man len ki dafa ñu gamé ni fay ay sàcc di fa ay man sama ko boy bu ñëwoon fi kon kiri mo am fi morox man sama boy wax ba sonu ma bàyyi mu sédal ñu naw seen paraaw ñu bari neena dañu ñu jëm agressé ci bir lamb yi ci mu bi ne day jóge ci mu bi ñu bu sama bu sama ci mukaay di sote ay galaj lool yépp pour jëm len waxu jëm leen xoxatal quoi bari noonu lay def mom ku muy munti bëri day ñëw esaat agressé jëm ñu ci mu kaay agressé la ñu ñu ci mu kaay baa ñu fi fii wa woo jëm ñu gis ngeen dinañ xool waa seen ndax boo pëlsee pëlsee tax ba léegi ñoom bàyyiwuñ gars yi ndarool leen gaañ sax gars yi moom a métti moom rek ndax tey bisu am na bisu am na lu si ñaar abi suba kii abi moo yàq moo yàq lamb ji sax mais na dafa jàpp sànni taali na di kër di boo jigéen nangu portable loolu nekkul yëfu góor sax loolu affaire ragal la sa moromu góor yàlla wala sa moromu jigéen yor liggéey ba am portable nga nangu ko si moom loolu dafa ñaaw trop. waaw na geste bu ñaaw mu am na solo kàddu yi mais mbër dégg naa tamit li nga jëlee gàmm bi xaalis bi bëri na ana xaalis bi. waaw xam nga gàmm amul xaalis man amul xaalis waaye ah combat bi da nga koy bëree après da nga dem ngay bëree combat bi gars yi kenn amul ku si jàpp xam nga lu ma wax ay fi waral dem gàmm waral lekk waral naan loolu dafa métti amul ku si jàpp de est-ce que newul da ngay jéem a tuur nit ñi lëndëm xam nga gannaaw jaloore boobu nga def foo romb ñu no, la dara kon war nga mën a dara non non billahi burul sama dëkkandu kon gaay ni ay mor fay gaay ni sama gaay ñoom barat ni burul loolu amul kenn ko ci jàpp gambien jox ñu la dara non non non kombabi? dañu jàpp ci combat bi sama combat bi quoi man combat bi dañu waroon liñ finance foofu déggoolum la dama la jour combat bi kese luñ finance foofu ëpp na 400 000 la jour combat bi kese luñ génne fa ëpp na duñ sarax si stade bi ëpp na deux cent cinquante mille te gars yi ñoo ko def ñun waa Gambie déggoo man la Baye Fallou Serekunda ak Baye Fallou waa sax xam-xam ñoo ko def waa Banjul ñoo génn sarax yi jëlay oto togg ay mbaana ci ay ginaar yow kon ñooñu ñooñu desalu ma ñooñu koy man maa leen desal mais ñoom desaluñu ma dara mais fii laa Sénégal fii ba may jël combat fii damaa ñëw fii Sénégal dem si télé yëpp ne damay bëre drapeau Macky Sall laay bëre dama gars yi taxaw gars yi jàppale ma woo ay nit yoo xam ne ñu si war a jàpp mais kenn jàpp si mais après dama leen ko jàppee kenn jàpp si nag kenn woo ma sax dama mbër demal yàlla yàlla may ndam mais après karaw am na benn moment boo xamante ni su la ñëpp jàppalee nga dem daanu tamit ah kenn bañ la jàppale nga dem daanu moom mu gën a loolu moom. su ma la déggee combat woo nga ci ay nit mais dañ la seetaan. waaw mais non non nekkul na mun naa am dañoo jàpp wala nekk si wala wala tamit am tamit loolu la naa dañoo amul quoi mais gis naa woo ma nii quoi man jàppee ma ko loolu dara ndax àdduna nekkul sa biir ngay am da ngay am pain saa suba nga ñaax nag waaw mais pain saa dama ne mbër su ñu la dooree ñaax nit man su ma dooree def loolu ñu bañ maa kenn bañ maa jàppale ma dem gañe moom gën génn naa dem dëkk jàmbur fekk fa ay nit ñu jàppale ma ñoom saake surtout xam nga Baara Ndiaye Fallou ma doon tëggal xam nga ku ma doon tëggal yéene yàlla xam na loolu yéene ma trop ñoom grand Pam Ndiaye ñoom buur ñëpp Gambie bi yëpp ñoom Baye Fall ak Cheikh Baye Fall ñëpp ñoom Mor Faye waa Serekunda bi yi jàppale ma dëkk ma fa ma ñëw fekk yi jàppale ma waa Serekunda ñoom Mor Faye tamit président Fane Sikala bi xam nga gars yi taxaw ma ñoom Cheikh Baye Fall xam nga surtout ñoom Xaadim Bamba Café ak waa Café ga Serekunda bi yëpp Baye Fall yëpp gars yi taxaw ma ma ñëw Banjul gars yi taxaw ma bu baax ñoom France France sama doomu ndey moom moo nekkoon si côté de waa Réserve fa moo doon bëri fan yooyu moom laa fekk si foofu moo dama xam gars yëpp ak ma fay ñu jàppale ma taxaw ma bu baax waa Banjul ñoom garga ñëpp marché Banjul bi tamit ñu dugg ñu am jour combat ba ñu suba du combat bi waa marché Banjul gars yi dem gars yi jàpp si gars yi dem ket gars yi génn jox leen xaalis jox leen ay ndugg marché Banjul yëpp maa ngi sant marché Banjul bi ñëpp ñëpp ñëpp ku ma xaalis tamit gars yi jàpp si xam nga gars yi taxaw nañ ma quoi waa Gambie. champion sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo. waaw di santaat ñëpp rek di gërëm ñëpp waaw di gërëm waa Saal univers fi ñu toog nii gars yi di gërëm waa Saal univers bu baax di gërëm sama papa moom faram di gërëm waa écrit moom faram bi yëpp di gërëm bu baax di gërëm sama gars yi demoon Gambie ñoom Baylaat Ahmed Seydou Alpha Boy euh, Yoro Kanté xam nga Cheikh Dabala sama xarit ba Amet Amet Gueye sama xarit sama doomu de Tafa Mbaye gars yi demoon Gambie métti na dem Gambie a baax di leen gërëm di gërëm te mënuñu ñëw xam nga gërëm Mor Faye sama grand bi toog xam ne si baax si bu baax ñoom bàyyi laat sama gars yi ñoo jàpp sama combat de sama gars yi ñoo si jàpp bu baax alpha jàpp si bilaay sama ma soti galaaj sonn si combat bi trop trop trop jël xaalisam def ko si xam nga ànd ak gars yi Gambie ma ñëw Gambie tam gars yi ma kon tamit maa gërëm waa Gambie bu baax sama papa melax ma ngay gërëm pa melax bu Gambie ma ngay gërëm di gërëm mo fay président parce que Balla gëd ka gërëm bu baax di gërëm waa Serekunda di gërëm wa Banjul bu baax baax Banjul ñëpp goor ak jigen ma ak ndaw pa bu leen gërëm di gërëm waa Sall Univers tamit bu baax di gërëm sama taw papa sere pa pambay di gërëm sama taw yaay Espagne xam nga di gërëm sama mag tafa mbay di gërëm sunu wa kër ñëpp di gërëm sama yaay sama mag jigen di leen gërëm bu baax di gërëm waa adduna bi ñëpp di gërëm waa monde lamb yëpp di leen wax Pambaay dafa am combat nag mbiru amateur yi la dafa am combat di gërëm waa ay université bu baax a baax a baax waa Sandaga di leen gërëm waa Rufisque waa Pàcc Koro di leen gërëm xam nga di gërëm waa Alkaida bu baax di gërëm waa Fouta Guinée Bissau Kaolack di gërëm waa Tivaouane bu baax ndax sama combat bi ma taxawu tamit damaa dem Tivaouane sama xabru turandoo ma Abdou Aziz xam nga def ziar foofu ma génn nonga daara yi wàccal ma kaamil foofu ma dem Tivaouane ma dem Touba tamit gars yi ñaanal xam nga gaay yi jàpp nañ si dal ñëpp di gërëm sëñ Demba bu baax di gërëm Zal Oni sama grand bu baax bu ñàkk ñaan di gërëm Zal Oni sama grand bu baax bu ñàkk ñaan Pare Sele Tufa Ndiaye Moro Jong Thiera xam nga di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñëpp jaamu daal waaw kii mooy Cheikh sar moom yor sar kalaat kaaw Cheikh nga jox waaw bokk internet yi lol moo doon waxtaan bu am solo bi am ten siq nañ ko ak le grand champion Pape mbay comme ni ko waxee sànq rek mu doon daanaan bu am ten kenn doon ko présenté eh, dem barki de mo njaay fi nga am ten mooy gambi dafa jëloo rek boo am ten tamit aussi yem na ñëpp Euh, mu doon un leader endurant parce que tey moom mën nañ ni bëree moom du ci sonn te technicité tamit kenn dootu ko naatable euh, mu doon waxtaan bu am solo une discussion pleine d' comme ni ma faral di ko waxee euh, di leen sant di leen gërëm rek di sant aussi les fidèles internautes di Guédiawaye Info TV ku ci mel ni Marley Sané Baye Gora Alamdar bu Espagne ak Bouba bu France di gërëm aussi suma technicien l'omniprésent Issa Koundoul jaajëf